alhamdulilah noonu sant yàlla bu baax bi ne suñu borom boole sëriñ muy cër bu mat sëkk tey kaw kaw foofa kaw ak doon alaxira nan sant baax baax baax nag sant sëriñ Tuubaa rek yi bàyyi xel di ànd ak ñun ci xasid ak nuuru daarayni fii xidmatil haami anil haarayni mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi daane woon démb fu sëriñ bi doon ñaanee suñu boroom musal ko ci yu jara muslu te mu tàmbale woon warudda kullama naha janaa bi min darari suufri wa durri naa bi wa durra aynin wa kalaamin wa darar ma xaana aw yaati wa soo in wa yow yàlla na nga delloo lépp loo xam ne jubluwoon na sama wàll na delloo mu dëppaat ci loru loo xam ne dafa ame ay ay wex mboolem loo xam ne ay tànkam daal ay weeng ci wala ay loxoom ay weeng ci te mu mën cay gaañe na ko delloo mu jëm ci ku du man ak lépp loo xam ne dafa sori waaw fu mu mën a nekk ci adduna bi rek lu mu sori sori lorom kooka yàlla na delloo mu jëm ci ku sama wàll loru bët ak loru wax moo xam lor gu teew la wala guy dikk la wala lu ñaaw yëpp ak alkande yow yàlla dellooxul mu jëm ci ku dul mag moo tax ne warul da yàlla na nga delloo ku la maa lépp loo xam ne na janaa bi samay wàlla na nga ko delloo mu dëpp min darari suuf ri ci loru loo xam ne borom ak wela wa durri naa bi ak lor loo xam ne borom ak sori la wa durru aynin ak loru bët wa kalaamin ak wax wa darar lor maa lor goo xam ne xaana dafa teew ci waxtu muy dund aw yaati wala muy dikk sax wasuwaan ak lu ñaaw wa xarar ak alkande wax na ne buñ na xarar mooy ëy xalaaku mooy alaku loolu Sëriñ watu de xarar su ko defee yii mu ñaanoon démb nag moom la wax ne yëpp yëpp na nga leen ndàq ñoom ñëpp ilaa siwaa ye ñi jëm ci kudut man wa siwaa maa ak ñi jëm ci lu dul la nga xam ne ixtiira yaa ko tànnal lii ñeel ma maanaam lii yëpp lorug lu sëri wala loo xam ne dafa amee weex wala lorug wax wala bët ñoom ñëpp na nga leen boole dàq ñu jëm ku dul man ak ci li ma tànnal da nga ciy dégg ne kon nit ki ba ci julli juróom joxe askam ak lépp ay nit man nañoo wax ba mu yàqule nit ñi mën nañ ko ca xool ba mu yàqule lu ne mën na ko ca lor waaye sëriñ bala nga xam ne ñaanam bàyyiwul dara li day matale mooy ba ci li ko yàlla tànnal sax ak lor maanaam du ci man dara ba ci jëmi boppam ji ak lor du ci mën dara ndax yàlla da koy garantal kon loolu yëpp dafa mat a bàyyi xel moo tax ne yii yëpp ilaa siwaaya na nga leen delloo ñu jëm ci ku dul man wa siwaama ñu jëm ci lu dul la nga xam ne ixtiyaar yaa ko tànnal li ñeen ma te mooy li ko yàlla tànnal mu di ko ci jaamu kooku yii yëpp bu mu ci am wàllu muy bët bu mu ci mën dara wax bu mu ci mën dara ak lor ku sëri wala ku jege ñëpp ci am wala loru sedd yeeg ndox yeeg na mu ko doon musloo yëpp ci xasida matlal faw sëñ mu ne yaa xayiran woo naa la yow yàlla miy aji wommat bi fadli ci sa ngëneel lii jox ma alxuyóor yiw yëpp yiw yëpp bu ci génn benn mu ne yow mi nga xam ne yaay kii mat mboolem yiw yëpp waaye rek def ko ci sa mbaax ci sa ngëneel ndax yow yaa moom ngëneel yaa ko jox ku la sopp kon nag yaa ma defal lii ah yaa ma ko defal yow yaay ki wommat ngëneel yi jox ma ndax yàlla neen maay jagleel sama ngëneel ku ma sopp kon nag dafa sopp Sëriñ Tuubaa mu jagleel ko ay ngëneelam ndax saa al ilahu anani mukarram bi an ya xillul wa hibbul Sëriñ Tuubaa nee na man la sopp yàlla ma ne man maay borom teraange yàlla ma teral dafa yàlla nag dafa soob yàlla mu ne man naay borom tiraange moo tax mu ne yow yaay ki womat sa ngëneel yi yëpp jox ma ko yow yaay ki womat sa yiw yëpp jox ma ko waaye nag def ko rek ci sa ngëneel kon nag yëpp na leen delloo ñu jëm ci fu dul man ak ma tàndal yaa xaay dan yow mi womat bi fadli ci sa ngëneel ci sa mbaax rek ci nga xool lii jox ma nag alkuyoor yiw yëpp ci génn benn mu ne yàllaaw yàlla woon naal yaa rahmaan yow miy xewlaa kon bépp mi ndef ci àdduna yaa rahiima tey ajëram ku la soob ci àllaaxira yaa yaa qudusu tey sa laakoon bi yaa mukrim yaa yow mi aji teral ji te yaa ki ma teral mu mel ni yàlla da ko wuyuwaat mu ne ko arayte nii faddalaka fii nafsi wa fii si waaye yaa man saana an ma koy fi xam nga da waxoon na ko yaay kii woo mat yiw yëpp jox ma waaye nag daf ko ci sa mbax ci sa ngëneel ndax yaay jox nga ne ku la sopp léegi nag mu bëgg a xamal nit ñi ne yàlla de ngëneelam jëflante na ko man ci anam bu ne jëflante na ko man ma di ko gis ngëneelam mayee na ma ko nu ma di ko gis man Sëñ Tuubaa mu ne arrêté ni yow yàlla wan nga ma fii naf ci sama jëmmi bopp ji wan nga ma ci fàttalaka sa ngëneel boo fii si waaye ak ci lu dul sama jëmmi bopp ji sax yaa man saana yow mi nga yow mi nga xam ne yaay ki a ñoŋal xan muqawwi ci wëlis ragal xaar yaay ki ma ñoŋal ba nga xam ne du ma mos a ragal benn noonu du ma mos a ragal mboolem bi lore du ma mos a ragal sa pexe du ma mos a ragal sa njeyal noonu nga koy toppee ba mu bëri mu ne yow sa ngëneel ci bopp man dama ko wan ci sama jëmmi bopp ma jàkkaarloo lépp ba noppi doyut ca nga jox ma ko waaye wan ma ko sax ci lu dul sama jëmi bopp nga xam ne bañ na ko tey ba ay taalibeem ak ñi nga xam ne dañoo làq ngërmande moom sëriñ bi ñooñu yàlla day jëflanteeg day jëflanteeg ñoom ci ngëneelu nga xam ne wan na ko ci jëmmam ji moom sëriñ bi doyut waaye mu di ko wan ci ay taalibeem di ko wanee fëri wan na ko sax ci xasaa itam yi nee ne sunu borom mat na ay ngëneelam doo ko sama biir xasaa yi kon wanee na ko ci anam bu ne moom sëriñ bi mu di jàkkaarloo moo taxoon yow yàlla arrêté nii wan nga ma fii nafsi sama jëmmi bopp ji fàttalaka say ngëneel ma di ko gis nga jox ma ko wa fii ci waaye ak ci lu dul sama jëmmi bopp ji yaa man saana yow mi ma ñoŋoon xan muq fi walis ak ragal mu ni sëli yàlla nga dool ko salaatoon dooli xool goo xam ne tukkari mu dana teral ba faw moom salaatu googu jaani bi samay waat waaye ba tey ma asalaam yi ndaa andu koog sëlmal googu xam ne ba tey moom it yukkari mu dana teral ba faw mu sama dund salaatu bi mooy teral samay wàllu lu bokk ci samay wàll salaatu gee koy teral waaye salaam gi mooy teral sama dund gépp sama dund gépp salaam gee koy teral waaye salaatu gi mooy teral sama wàll gépp tabarka la te jamono ju nekk la koy def nag mu ne salaatu salaam go wax la ci nag sotti ko yónni bi nga xam ne kaw ni sama nekkal gi ma nekkal di yeesal diinaam nekkal ko ci diinaam ji doon al alxabdu ca yàlla doon alxadim ku koy liggéeyal moom yonent bi nekk gi ma ko nekkal daal ci waar wi di ko bayal te mooy li ko yàlla yónnoon ñëpp maa ko yeesal ci man la yeesee nee na nekk gi ma nekk loo ñeel ko nee na maxluuma lu ñu xam la ay waay ñëpp xam nañ ko de nekk gi sëñ Tuubaa nekkal yonent bi loolu bu taxutoonu tukki bi rek nit ñi xam nañ ko rawatina koo xam ne tukki moom rek lañ mos a gis juróom-ñaari at yu teg juróom-ñaari weer mu nekk ci tumuraanke koo xam ne gisul ay bokkam gisul kenn nekk ci tumuraanke rek wéet cundum nekk ci biir nasaraan te mostu mooy yàlla mostu mostu def mu daxan rek di wéyee seen ndigal ak seen bëgg-bëgg mukk te mostu faat waxtu borom kooku bu nekk la yonent bi kooku ku ne war naa xam ne amul sikk ne kooku nu nekk la yonent bi kenn kenn ko sikk sax moo tax ma ne alayhi salaatu mu sotti ko bi nga xam ne kaw ni sama nekkal lëxoo ñeel ko ci waar wi ci toolub lislaam nee max loobu lu ñu xam la wan xaada na nga womat lii ñel ma fii hubbi ak soppam taxliimu sama jàngale sama jàngale daal na nga ci def mooy jàngale te mooy jàngale bi yonent bi salaam li fi yonent bi bàyyi ndax yonent bi nee na dañ maa yónni ngir ma ñëw jàngale inama bo asu bi taxliim dañ maa yónni ngir lan ma ñëw jàngale waaye dañ maa yónni ngir ma ñëw mottali jukkoog ma karam axlaax mu ne kon nag sama jàngale nang ma womatal ak sopp maanaam ma bëgg jàngale kon Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ku fonkoon jàngal la nang ma womatal ak sopp maanaam sama jàngale ma bëgg jàngale ndax yonente bi jàngale rek fi taxoon ñëw ak saafara jàngoro xol ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla léegi na nga womat yow yàlla lii ñelu man Sëñ Tuubaa fii hubbi ci ak sopp taxali bi maanaam daal li may jàngale te mooy yoonu yonente bi ma nekkal ko ci loolee maanaam sama lépp sama yitt yëpp naa rek maanaam benn ci fee lay am mooy di jàngale te mooy njàngale bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne Seydina kooku mooy suñu sang membre yi trop mooy Muhammad wala alayhi salaatu dinañ ñëw ba ci waa këram sox bi ak saabaam yi fii xaali fii ci biir ma xeer mu gépp bi jaay ci dal jaay yonent bi alax si moom mi aji màgg na nga ñoŋal sama dund gépp min xayri ma ci lu dul laala nga xam ne di ka da ko gërëm yow yàlla yaa muhammadi yow aji dundal sama yow ki nga xam ne yaay ki may dundal yow yàlla nanga nga ñuy sama dund bi waaye ci darja yonente bi nga xam ne ku màgg la ndax taw solo bi jaay fa ina jaay ndala asiman yonente bi nee na daneen taw sama darja ndax lu màgg la sama dund gi na ko ñoŋal ci darja yonente bu màgg bi ñoŋ mooy lu yàlla gërëmut sëñ bi du ci dem yàlla kuy dundal di ko xont lu bëgg mu jox waaye la xam ne moom yàlla gërëmut ko kooku bi du ci dem ndax dundam gépp dafa ñoŋ ci sunna rek lay jaar mu ne wax si yàlla na nga ñoŋal xommul yi sama dund gépp di jaay ci darja yonent bi alan si mooy aji màgg ci min xayri ci lu dul laa nga xam ne yurdi ko da nga ko gërëm maanaam bu ma ci dem mukk naa yem ci li nga gërëm rek yaa muhammadi yow mi nga xam ne yaa ki dund yaa raxmaan yow muy yaa yaa maliku aji ter la jotee yaa ki teral mu yàlla du ko wuyuwaat mu ne ko atlaxta nii wasaxtali fa sukuri mi nii taqabal yaa mu nii la sikri mu ne atlaxt ni booyal nga ma booyal mooy ittilaax koo xam ne da maanaam dañ koo goreel ca safara maanaam du tàbbi safara waaye ba noppi sax lu mu defati kenn dootu ko bindal bàkkaar maanaam xalima gi ngay bindal bàkkaar kooku dañ koo damm na la tegee ne te fu ko neex ci payé suñu borom yi dem loolu waxoon yaa maalikal mulki li wasata doona jaran waaye fil mulki wal malakooti malakooti li nga xam ne dafa nëbbu te mooy malakoot yi ak lépp da koy gis fu ko neex dem ci looloo tax mu saña kiinu jaam ñi ca kanam boromam na leen na nga leen ñoom ñëpp ndax xam na jaam ñi lu tax ñii mooy suñu borom tabaaraka taala mu ne ko attalaxta nga ma wasaxta li yaatalal ma loolu mooy lii wasaxta doon a jawaab ma neex dem ku ma neex dem kenn du ma agressé benn njàqar du ci topp moo tax ne attalaxti booyal nga ma waaye bi ma booyalee wasaxta li da nga maa yaatalal ku ma soppeem kon nag fa faaw saw bi yàlla sabab suusu li ma defal nii sukkuri sama cant mi nii bàyyi ko na ci man li nga ma defal a tax li ma booyal ba noppi yaatalal ma fii bu ma neex dem kon fa sabab soos sukkur sama cant mi ni bàyyi ko na ci man taqabal ngal la yàlla na nga ko nangu yow yàlla yaa mu nii la sikkiri yow mi aji maye ak tudd yow mi nga xam ne képp koo xam ne baaxoon na di la tudd te sax fa maanaam yaa ko ko may mu dilu ko def yaa ko ca xiir mu dilu ko def kon nag yow mi aji maye ak tudd maanaam nga xam ne sëriñ bi moxtu dañ mukk di tudd borom làmmiñ moxtu jóg ci tudd borom tabaaraka wa taala ndax waxam yëpp mooy xawlu laa ilaaha illa muhammadun rasulullah moo tax mu ne at laxti booyal nga ma wasantale yaataloon nga ma kon fa fa sabab suusu sukkuri sama catti bi ni bàyyi ko ci man taqbal yàlla nga ko nangu yaa mun la ci yow mi aji may ak tudd salli yàlla nga dolli xol salaatan dolli xol goo xam ne lantihaa déetub yemukaay laxaa di ko ñeel moom salaatu waaye nag bi salaami na ànd koog sa dolli wóolu goo xam ne walaa luhoo déetu ko ñeel moom i yemukaay ba tey waaye alaama ni yal na ko sotti ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii nga xam ne intahaa mooy mooy daytalub intahaa daytalub sayri sama dox sayri sama dox bihii ci dara jàmm ka jëm ci ci yow yàlla wa huwa kookee ngay sotti salaatu salaam gi nga xam ne sama day talub dox bi muy tukki bii ma nekk ak dox gii may dox jëm si ci yow ci dara jaam la bu fekkee gars yi ñu xamuñ ko ma ne leen wóof wóof moom ahmadu mooy ahmad laahu akbar nee na yow suñu borom bi tabaaraka wa taala maa ngi lay ñaan gu julli julli gu ànd kook sëlmal goo xam ne genn du ci am yemukaay waaye lu muy ñàkk ñàkk am yemukaay sotti ko ci kaw yonent bi nga xam ne sama day talub dox bi ci dara jaam la dox gi may dox ci dara jaam lay waaye nag jëm ci yow kookee may dox ci darjaam jëm si ci yow mooy ahmad dafa bokk ci turu benn yoon la ñëw ci alquran mooy Iisaa moo ko déclaré woon nitam ña wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu ahmadu moo tax ma ne alaama ni salaat bi ma sotti ko yonent bi nga xam intaha day talub saydi sama dox bi bii ci darjaam la waaye nag fii lekk jëm ci yow wa te moom ahmadu mooy ahmad yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne tawajjahtu jël naa sama lépp jëmale loxoo ci yow yaa samut yow mi nga xam ne yaay ku ñëpp li jëmale ay aajo te jubloo aajo jëm ci kenn sama lépp daal jël naa ko wëkkil ko ci yow gis nga yi nga xam ne rek da koo tënk mu tàmbale wajjantu kenn xamul nuñ toll wajjantu kulliya saa sooxe wajjantu kulliya bi am dina sukkoor noonu nga koy toppee xaside yi tënkee rek wajjantu nga xam ne ci tàmbale tàmbalee euh, mat lawal xaside yi kenn xamul nu mu toll lépp taw itam lépp lay jël jox yàlla moo tax man yaa man yow xam ne tawa jaxtu danaa jëmali sama lépp loxoo ceew yaa samadu yow mi nga xam ne yaay ko ñëpp jëmali seen aju te jublu aju jëm ci kenn parce que samadu nga tudd kon nag sama lépp damay jël jox la ko rek mu ne yàllaaw yàlla woo naa la ba tey yaa raxmaan yow mi xewlaa kon bis bi néew caat na yaa raxmi tey ay jëm ko lu sopp ci àlla xaw yaa malik yow mi buur yaa xudoo si tey seela kon bi yaa mukrim yaa yow mi aji ji te yow yaay ma teral mu ne xasamtu wacc xakkal karima abada bi waccaaka sa jëmm ji alkarima jay aji tedd màggal naa ko abada ci luy sax ba faw lan nga ko màggale Sëriñ Tuubaa mu mel dañ ko ko laaj mu ne bittar ci xaw di diya ci bàyyi samak dellu ci bàyyi samak dellu ci laa ko màggalee ngir sa jëmm ju tedd ji kon nag fa abida na nga saxalal ma bisiri sama mbég yow yàlla nang ma saxalal loo xam ne daf may bégal mooy li nga xam ne mooy lu bon lépp lépp lépp boo koy tënk daal ci gàttal bëri na waaye lim bàyyi ne dootul ci dellu boo koy tënk daal ndax mboolem lu bon lu bon rek def naa ne jàngoon nañu ko ci xasida ak démb yi muy xasida yi nga xam ne da koo def ci weeru tedd wi te mooy weeru rajab muy rajab boo xal sa sin as na kuléet yi jaay naa lu yàlla gërëmut yépp waaye bi ma ko jaayee dama ko jëndee lu yàlla gërëm waaw bi ma ko jaayee dama ko jandeelu yàlla ki rek moo tax mu ne màggal naa sa jëmm ju tedd ji màggal naa sa jëmm jii nga xam ne mooy ju tedd ji waaye màggal gi day sax ba faw ñi ne ko loo ko màggalee mu ne bàyyi sama dellu maanaam mooy li yàlla xaraamal lépp li nga xam ne yàlla da koo tere lépp ba di ci ti koy gaaw loolu yëpp da ko bàyyi lan ngir la màggal jëmmi yàlla ja waaye nag di dem ci nga xam yàlla da koo màggal ba noppi xormaal ko di ko màggal mu ne ko nag nang ma taxalal ay mbég ci bàyyi gi ma bàyyi lépp loo gërëmut ngir lan màggal si jëmm ji rek tabarka la moo tax ma ne asmatu naa ko ci ak jëmm ji alkarim ji aji tedd màggal naa ko abada ci lu sama faw bi tar tarki xaw diya maa ngi ko màggalee ci bàyyi sama dellu mooy ci lépp loo gërëmut kon nag ak li nga xam ne da koo jaayantoon ak yàlla na du ko lekk itam loolu day dugaale ci biir mu ne fa ab bi nang ma saxla nag bi ci di sama mbég ndax ku bàyyi dara la ngay séentu mooy dara kon nag ku bàyyi dara fokk nga def dara moo tax moom saa yu bàyyi dara rek yàlla mu ngi koy jox ay mbégte yoo xam ne day kawe la mu bàyyi mu ne wax waqayta fegal nga yow yàlla moom bi sama dund al asa lor wal kaddara ak i ay nëx nëx lor ak i nëx nëx fegal nga ci sama dund dootu ñëwati ci man yaa man yow yaay ki nga xam ne tujjir yi da ma dawalal dara ay dogal bii tafsir yi bii tafsir yi yoo xam ne dañ may bégal yow yaay ki nga xam ne dogal boo dogalooti ci man rek dogal bu may bégal lay nekk la ko waral mooy dafa jaay lépp lu bon jëndee ko lu baax jaamu yàlla rek moo tax yàlla fegal ko dundam ci lépp luy lor ak xeeti nax-nax ya ba yàlla lu mu dogalute rek mbekk lay nekk ci sëñ bi moo tax ma yaa ma yow yaa ki nga xam ne tujjir yi da nga ma dawalal alxadara say dogal yi waaye nag bi tafsiir ya yoo xam ne daf may bigal dawal yi ngay dogal yëpp dogal yi ngay dogal yëpp di ko dogal yow yàlla loolu yëpp mbégte la may jural man sëñ bi mu ne ko solo yàlla nga dool ko salaatan dool yu xool goo xam ne yas xadaan ñaari way seede lañ ñoom ñoom salaatu bi maanaam sëlli yàlla dool ko salaat dool xol bi salaamin ànd kook sa dolli wóolu goo xam ne tas niyee lisib la yees xaaraat ñaari way seede lañ li ñel ma bi kaw nii sama nekk saadiqan di aji dëggu waaye wayu sin daan ñaari way texeel lañ ma mu ne maa ngi la ñaan nga julli xam ne day ànd kook sëlmal waaye ñoom ñaar ñoom dafa am lu leen tax a muy salaatu ak salaam dañ may seedeel dëggu gi ma dëggu ni fu ma teg sama tànk rek te muy diine te muy salaatu islaam ya maanaam dëggu gi ma dëggu jël sama lépp jox ko yàlla jël sama lépp sama mbëggeel sama cofe lépp jox yonent bi yaquudu ni sawqi wa hubal Mustafa bil matti wa sabbi fuqul saktifa wala sëñ Tuba nee ne sama sawqu moo may wommat ak bëgg yonent bi ma jëm ci di ko tagg ak di aar diinaan bi te nee na soxlaatuma beneen liggéey fuqultu saktifa loolu doy na ma sëkk lu ma ciy jëlee tam ci xëy feer doy na ma bëggaatuma keneen fayam mu ne na nga julli julli goo xam ne gu ànd ko sëlmal goo xam ne ñoo may seedeel sama nekk doon ku dëgg waxoon daal martabay ci ku martaba mu jafe la te nee na la fa yóbbu mooy alquran la dallahi saa sirti la wax ci xasida mu xadamatul am daal la fa yóbbu mooy mu yegg ca martabaam sirku nee na alquran moo ko fa yëgal uniltu biha kaw ni la dallahi sa sirti waaye ñaari way texal lañ ko ba tey ndax ku dëgg ku ne da ngay bokk ci tex mi ndax fu ulaayka maa lasina anaamallahu alayhim mina nabiyina wa sidiqina wa saaday wa saalihin waas na ulaayka nañ ci yàlla mu ne Issa daan ñaari way seedal ne lii ñoon bi kaw nii sama nekk saa di xam di aji dëggu woyu seedaan waaye nag di aji texe nga xam ne kon mu ne salaatu gi nag àla la si nanga sotti ko yonent bi nga xam ne aw awrasani moom yonent bi laa leen wax de moo ma donnuloo waaw almanafia njëriñ ñëpp yi ngay dégg bul bàyyi benn waaye nag gis nga kon lu ko yónnent bi defar rek loolu daa mel ni yàllaa ko def moo taxoon bi is ni bàq ci ndigalu yàlla mi fee sax ba faw da ci am ndigal ak yàlla de yónnent bi bu demee bay doonuloo Serigne Touba njëriñ ñi fi bàyyi yëpp kon Serigne Touba mi ngi lay jàngalaale ne yónnent bi yàlla da koo yónni mu moom njëriñ bi yónnent bi lii la fi bàyyi sunna nee na alal la si awrasa ni sawaaba njub gi muy sunnaam doon loona ma ak alquran ñuy wàcc moom xale la ci awrasanil kitaaba jàngoon nañu ko ci gannaaw nee na doon doon ko waaye léegi mu des njëriñ ji ndax yonent bi njëriñ yëpp moo leen moom mu ne alal la ci awrasani manaafi'a kon jeex na Sëñ moo doon lépp moo doon lépp yonent bi salaatu moo doon salaatu bi an la ci nag sotti ko yonent bi nga xam ne awrasani moo ma doon loo al manaafi'a njëriñ yëpp bi isni baaxin la nag ci ndigalug yàlla mi fee sax ba faw ci la ma ko donn loo te laay saalu du dañ mukk naa fi adi aji jëriñ tabaraka la laayi saalu du dañ mukk mukk mukk naa fi adi aji jëriñ moom yonent bi salaay salaam te moo ma donnloo mboolem njëriñam yi waaye ci kattanug yàlla ci ndigalug yàlla la ci am te moom du dañ mukk di aji te mooy ki ma donnloo njëriñ mu ne Seydina moo seen sangi Muhammad turul Muhammad wala ni ñu ba ci waa këram wa sax bi ak saabaam yëpp ci li xaali fii ci biir adduna wal maali ak delluwaay ba te muy ëllëg yawmal qiyaama fii haali fii ci wal maali ak delluwaay ba te muy ëllëg yawmal qiyaama mu ne wasaxal bii xattiya rabbi andaka akbara ridwaanin waxande jundika waccaal yàlla na nga bi bihi ci darja yonent bi xattiya sama xasidi gi xattiya sama mbind mi rabbi yow son yow sama borom xendaka na nga ko def fa yow akbara muy gën kaa màgg ridwaanin sa ngërëm waaye nag ba tey waxeen da jundikaan na nga ko def fa sa armée ba maanaam mu doon lu ñuy gën a bégee lu ñuy gën a kontaan luy gën a yëngal seen xol ya mu ne na nga def sama mbind mi fa yow muy sa ngërëm li gën a màgg waaye nag itam nan ko noo ko defee noonu ci yow na ko doonee moom it ci say armée ba mu doon seen ngërëm li gën a màgg ngërëm du leen lu mooy koo xam ne ku yàlla bég ci yow rek fu ne yàlla ku mu bég ci yow rek gërëm na la waaw fu ne xasida yi ñoom it dañuy bégloo malaayka loolu mooy malaayka yi dañoo gërëm xasaayid yi moo tax wajal yàlla nga def bii ci dada yontu bi xata yi sama mbind mi rabbi yow sama borom xendkaa fa yow ak bara ridwaane muy gën caa màgg sa ngërëm mu ne yàlla yaa ko ma talal mel ni yàlla da ko yuwaat mu ne ko kasafta muril muril mooy lu nëbbu hoon ñi may nga di ko gis loolu mooy kasafta muril nga lii ñeel ma kas fan ak muri goo xam ne yuri nii danga may wan man ba xam li nëbbu woon lépp lépp lépp ci tey tukkub ba ay ak ay asraar ak ay xuyub xuyub ak asraar yëpp boolem la ci nëbboon rek yow yàlla muril nga ma di ma ko wan ma di ko gis moo tax ne kasaf ta nga ma jàkkaarloo li ñel ma kas fan ak muri goo xam ne yuri nii danga may wan man ba xam li nëbbutu woon lëm lëmu woon yëpp yaa ma koy wan waaye wasunta nii aaral nga ma sa bopp xanil xeddaa walis noon yi wëttuwam ak tuumal aaral nga ma ba xam ne noon yi man ci man dara waaye mënatuñ maa tuumaal ba ñi di ma jël fii ci njaarim du ma yóbbaat ci tukki ba déedéet mucc naa ci ñoom yaa ma aar walis noon yi ba duñ man ci man dara waaye dootuñ ma tuumalaat benn tuumaal ba ba ñi may génne di ma yóbbaat déedéet sott na jana takk kon mu ne wasuntu nii añil ahadi wal toxam yàlla nanu yàlla dafa déggoo topp mbokki ba